salaamaaleykum mbokk M4 TV ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di kontaan ci réew mi di wax ne yal na yàlla dolli jàmm di nuyu yal na Sénégal yal na fi jàmm di nuyu ñi nga xamante ne ndeysaan mooy sama gaay yu baax jàmbaar yi góor yàlla yi maa leen di nuyu bu baax baax a baax damay dugg si kër yi di nuyu jéeg ji nga xamante ñooy togg ceeb yu neex yi dugg si yi di nuyu gentleman yi nga xamante ñoo ne si kër gi di def lu baax mais di nuyu ñi nga xamante ne suñuy yaay ak suñuy papa di daal di nuyu ñi nga xamante ñoo si prison bi yàlla na yàlla defal leen jàmm defal leen tawféex ba ñu mën a génn dellu seen i mbokk mais di nuyu ñi xam te ñoo ne si hôpitaux yi yàlla defal leen tawféex may leen wér may leen fan nee naa la tey ndeysaan Zair en bilan mu ngi si émission bi ñu tey moom damay nuyu ñëpp di daal di dem ba Europe di nuyu diaspora bi yàlla yàlla bégal leen yàlla defal leen tawféex doolu leen sutura ndax kenn du ñoom ndax kii nekk kër ga ndeysaan nit ki nekk bitim réew liggéey di la yónnee lu mu am bokkax ñi xam te ñoo ne si réew mi dañ leen di ñaanal jàmm saakaatuma ki xam te ne ndeysaan ay jigéen yoo xam te ne ay jàmbaar nañu liñ naan ndeysaan ndaw bu yoroo tey bëri xam-xam te yaay ji liggéey lu mu am jomm ko mais nag am na ndaw yoo xamante ne ndeysaan chaque jour dama leen di bëggee di leen tànn ndeysaan ñoo xamante ne ndeysaan tey fu réew mi toll rek dama naan ñoom si lañu ndax nee naa la réew mi rek te daa jóg yoru ko liggéey moo ko yor kon nag ñuy kontaan ñëpp mais ndeysaan man ger ambulant maa ngi bég di nuy fukki pe njëg ñaar ya ma bokk mais di nuy waa Bargny bu baax a baax ndax yàlla yàlla dolli seen jàmm di nuy ndeysaan Ndey Mari borom borom France ndeysaan kontaan naa ci yow bu baax nga jël nuyoo bi jël ma nuyoo bi jox ko samay yaay ak samay pap ak samay ndijaay ñi xam te ñoo ne foofu ñëpp joxal ma leen nuyoo bi dina wax Zair en bilan nag ndeysaan tey nag damaa ràcc ne M4 TV di wax loo xamante ne moo ma neex ci réew mi di xool kër gi ndeysaan nan la nan la jéeg ji toogee ñi xamante ne saan man dama bëgg jéeg boo xamante ne bu ñu ko joxee dépense bu doy ko la jox 1000 francs ndeysaan dolli ci yeneen 1000 francs muy 2000 boo demee marché ndeysaan nga toggal ay ceeb yu neex ceeb yoo xamante ne ku dugg si kër gi ni nga xam ne ceeb baa ngi wax parce que nee naa la ceeb bu neex moom li koy togg mooy xol bu rafet borom xol bu rafet ndeysaan daf may neex xam ne loo ko jox ndeysaan am dem day am yéene toggal la ba sa xol sedd ba ko da ngay am xolam mën ko lekk ba sa xol sedd ndeysaan kooku du ma du ma jéeg du ma gëj di ko nuyu ndeysaan bu ma jógee foofu danaa la réew mi nag yaakaar naa ndeysaan xam naa ne tàng na fi mu toll nii ndax sama gaa yi ñu ngi si dëkk bi dugg ci kër yi ndeysaan ñi xamante ne ndeysaan fu ma toll rek nee naa la damay bëgg si ñoom mais nee naa la tey Sanzer ambulant borom barñi borom aw la noo woteel noo tey aw la noo woteel dama naan tey laa la jooyati aaka def dañu kaa wax jig ba baax nag ba nee si kër def la baax la wax la baax kooku ba xewlee naa def ñanakaan laa la ñu sa jooy aaka def dañu kaa wax ba defee tubaab daxal ligi ñanakaan laa la pëllëre aaka def dañu kaa wax aw laa la pëllëre loolu nag nee naa bu baax moo ko am jéeg boo xamante ne ndeysaan bala togg daal xam ne kii la togg tey am na inab togg parce que nee na ma tubay toggul ab ceeb ab tiset toggul ab ceeb ab ceeb baa bëggee togg daal sol yére ba rafet yére ba rafet bi ma la mën a moo la tey umee ne ko oddu oddu ba toggal nu ceeb bala wax ceeb bi tey man jaaxal na ndax ba jëkkoon ndax gis ab ceeb mën naa kaa togg une heure ba du farax mais ceeb bi tey baa gisee li tax mu la farax euh, jéggi nee kaa toggee moo jaaru yoon dama bëgg jig baa xam ne bala togg ab ceeb dala set silvissé gëm boppam ñëw tey baasab 4 mètres baa xam te ne 4 mètres moo la ñëwal mais am 2 mètres yaa xam te ne ak musóor la kooku ba togge ceeb dala mën a nii ndeysaan kooku dama kaa bëggee moo tax ma ne ndaw bu yoroo tey am xam-xam te yaa jël liggéey lu mu am jombu ko kon dama ne juddu géerëy deret jefoor ñooy doomu Lebu Piir ñoo baak ñoo gore gar mi yang ah dama lay way way la li ñu bokk ñoo bokk men na maam ya baak yaa gore gar mi baange loolu boo diggee ñu di ko way gar mi moo tax ñu di ko wax gar mi moo xam ne ne koo xam te day xëy nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla nangoo def lu baax dinaa la koñ bi boo fi nee def lu baax mais kër gi boo fi nee def lu baax loo def day neex moo tax dama bëgg jéeg joo xam te ne day set day gëm boppam day xam li ko war si jëkkëram mu di ko def nee naa jëkkër dañ koy toppatoo xamul tax ma jëkkër dañ koy toppatoo man gère ambulant waaw bu la yàlla joxee jëkkër jëkkër joo xam te ne gentleman la nee naa la war si moom da koy def bu xëyee war a liggéey nee yeewul fajar nga tàngalal ko ndox mu sangu yaa ngi dégg bu ñu nga génnal ay yéreem tegal ka yaa ngi dégg mu mën a sol nga naka tey papa damaa bëgg sol lii def lii yaax lii naa jéeg da ngay mën dara néew si kër gi rek di lekk di naan di xuloo bëgguma jéeg boobu man kooku duma ma doy man jéeg bi may wër mooy jéeg boo xam te ne bu sa jëkkër yeewoo nee naa nga tàngal kanto naka demal nga sangu ji bu sangu jee wañëw nga génn ko yére mu sancaru rafet ku mel ni ndeysaan soxna nday mari moom nee naa la loolu lay def a ah, soxna amaama sa kër ga ndeysaan moom bu ayee rek muusi du ñu baagante waaw parce que moom daa mën toog ceeb am na toogkati ceeb yaa xam te ne ba ngay ayee muusi du parce que day xam ne ceeb bi tey du des ceeb bi du dees parce que day xam ne ba ayee dal togg ceeb ba nii ceeb ba guus ceeb bi nag ndakaa classé parce que ab ceeb li kaa classé moo la ko équipe type équipe nationale bi ni ko Aliou Cissé classé man ab jig nee na ma noonu laa classé ceeb parce que nee na la ba yàkkee jël xuñ ci dëkk si digg bi jël aw yaabay tekk parce que yaabay day safal cin u am aw sompaat wala aw yëkkam tekk si digg bi jël ñaam bi tekk gauche jël suuf def ko latéral jël korot def ko mu def attaquant yaa ngi dégg jël ñoom suul sànni leen si milieu terrain bi ñuy def lu leen nee yaa ngi dégg jël bëgg a tekk fu la neex bëgg moom bu la neex mën na def latéral jéeg boobu man kooku daf may neex yaa loolu nag boo koy def ngay togg ceeb bu neex léegi nag muusi dañ naan ah tey kii tey ah soxna nday mari moo aye tey tey jaru may baagante ndax xam naa ne ceeb bi ci boppam du des mais nag boo mel ne tey ndeysaan ndey faatu mi aye xam ne daa sol tubay ja dang kooku aw tàngaay mën naka jàpp booba toggee ceeb bi dala des daal gis muusi la baagante ah tey ndey faatoo aye parce que du togg la nii gon nag dama bëgg a jéggi yéen leen defar ba mu baax tabaski ji ñu jëm parce que ay ndaana ñooy dugg si waañ tabaski ji du ñëpp la jël di leen wóol di leen dugal si waañ waaw waaw tabaski du ñëpp ngay jël du leen dugal si waañ parce que am na ñoo xam te nee naa la boo leen dugalee si waañ fii jamono tollu nii ah daa yaa saw yàpp waaw ndax aw yàpp daa am nekk a toggee aw yàpp kenn du ko baxal aw yàpp kenn du ko baxal aw yàpp ba bëggee mu nii daa kaa jël u saaf ka ni nga ko war a saafee wala jël ko togg ka ni nga ko war a toggee baa ko toggee ab ceeb ceeb ba wee dala nii nga kaa mën a lekk daa see mën a lekk ba yàlla may la jàmm moo tax ñooñu ndeysaan jig jooju damaa kontaan si ñoom moo tax parfois bëgg ka mel ni soxna Mbom démb rek maa ngi koy wax euh, ndeysaan moom tàmm na danoo nekk ak moom atelier jëkkëram atelier njàmbe moom baa gisee ndeysaan euh, ba andee boolab ceeb rek dax la yaakaar ne kii ab daayira la andil parce que boole ba mag la andi booli baa xam ne dana rëy dax la gis mu teg ñambi ji suuf pomme ji ndeysaan korot ji ñii mi nii ba bëgg a dee moo tax parfois ñambeem dala mën a ñor ba chaque jour dama nakaan nii ñambi toog kob soos faa la nduggee faala nduge faala nduge ay ni ñambi to kaf soos faala nduge moo faala nduge faala nduge mbom ni ñambi to kaf soos faala nduge ndeysaan loolu mbom moo ko moom ndeysaan moom ndax ne si kër gi la def la baax la wax la baax ndeysaan ba ka njàmba joxee 2000 mu teg si yeneen 1000 francs mu la 3000 loolu man genre jéeg boobu daf may doy ba pare café tamit kafe doon see wax si jéeg ji xam ne mën nekkaa defar nee na du la jox potab café rek u jël lépp nekk si def boobaa dax la drogué a jëkkër dala bëri laa xam ne maanaam dala dox sa médicament yi te fekk ni ko defee dose bu baaxul man nee naa daal bëgg naa jig bu baax jig bu tegu si temps jig boo xam ne bu yekkee rek xam ne yekka na ndeysaan moo tax loolu daal bëgg naa ko chaque jour mu di ma am boo gisee suñuy yaay boo demee dem bu mel ni barñi suñuy yaay ndeysaan dañ daa jox fajar bële ëtt yi ronda yi moo tax bu ñu xëyee ndeysaan dem demin wala lakk ay jën yu baax ndeysaan di jóge fa bu ñëwee defar ko ceecax boo diggee ñu ne ab ceecax ab ceecax da am nekkaa defe dakaa lakk ba mu baax uweer ka baa ko wéree jël xorom siw ko baa ko siwee après loolu la mairie la jël paqueté ka jël ko yóbbu ko commencé jaay moo tax ñoom boo jëkkoon seen ceeb dax barkeel ñam ceeb baa ko tegee fii heure bi midi bi une jot mën naa kaa bàyyi fii bàyyi fi bàyyi ko fi ba suba ba xëyaate ceeb bi du fara mais ceeb bi léegi man li tax mu la farax man dama yaakaar xaw ma dépense bi moo moo barkeelul xaw ma daal man man loolu daal gère loolu daal ça c'est émouvant na ma trop te man dama bëgg kaa am te ab ceeb te man dama xam ne ceeb bi léegi parce que dajj yi moo ëpp dajj yi moo ëpp yaa ngi dégg ba jëkkoon fël-fël daa daa gis si côté bi fël-fël man fël-fël daa war a ñëwaat parce que fël-fël ba jëkkoon ba daa gis si ceeb taana ceeb bi daawul fara yaa ngi dégg moo war ba jëkkoon tey mairie Bargny mairie ba jëkkoon ah mairie léegi bokkuñu yaa ngi dégg jigi léegi da daa say gis ña am te ne daal des na la bëri quoi moo tax jigi ba jëkkoon man day maa nii daal gis ña la taalab añ ku digg ña la woyantu si waañ wi daal digg ña naan sëñ gaara be sëñ bi jufoo sëñ gaara be boo rëbee ma taali reer cere yi baraaya boo diggee ñu naan boo rëbee ma taali leer mag ñi ba jokkoon dee daa dem ñii góor ñi ñenn ñi ñu ngi si àll bi bay ne yaa ngi dégg mooy rëbb ñii bay seet lu ñu ut ak lu ñu am yaa ngi dégg bu dee seen yaay ne sëñ ngaa rëbbi mais baa rëbbee man ma taalal la reer reer bi nag bala xam ma dee la cere bi amul fen dekkil reer xam nga dekkil amatul ba ci ko daal la toogal ndeysaan ku mel ni ndeysaan sama yaay yaa ngoon a mun a gérer tey dama am envie xaama dekkil ab mais la moo tax jigi léegi duy dekkil reer reer yi na am si kër yi ah waaye Sénégal waay reer yi moo amatul si kër yi moo tax baa gisee tey ndeysaan réew mi toll fenn fi ba coow li jógee rek boo booy la profité ñi naan xaama dajji mege bi xaama dajji ab reer moo amatul moo tax gune jigéen di parfois dax ñaa gis sax ñal taxaw ñal taxawaalu kaas doxaan balaa 24 heures li mu laa njëkk laaj moo la gérer ab reer ana reer yi reer yi na ñëwaat Sénégal ah waaye président andil ma reer yi waay dugub andil ma ko fii gars yi la bay dugub bay bayee dugub ah ndax ma mën a muuñ ba nu muuñee ah mën a defar cere ba nu defee cere gars yi mën a reer ba suur loolu moo la problème yi kër yi na jigi da defar ay reer ya baax say doo mën a toog mën a am jàmm doo am benn problème mais man ba ma reerulee toog ba digg guddi ma biir la jooy loolu mënuma kaa xaar loolu ba fekkee man ka guur la mën a sonal saakatuma ka jigéen dama bëgg dalay réer ñëw réew mi di yëngu ku si nekk fa nga toog yaa ngi dégg ñuy am jàmm mën a naan ataaya ndax jàmmi réew mi mën a parce que nee naa jàmmi réew mooy lekk bu suur naan ba mandi hôpital yi am nu la faju la lekk ba suur la naan ba màndi la kaf la ree nee naa réew mi foofu la toll te dañ koo war a am nag ndax fu ñu tourné ndeysaan ñu mën a happy parce que jeunesse bi nee naa la ndeysaan ñoom ay jàmbaar te nee naa la jàmbaar rek moo xam moroomu jàmbaaram moo tax damay ñaan jàmm réew mi yàlla doolu yàlla dooli yàlla na yàlla dooli sutura man gère ambulant doomu bari ñi parce que man dama naan man damay sagoo bari ñi ku ne am nga fu ngay sagoo man sama réew laay sagoo xam nga lu tax ñu waxi loolu maanaam nit ku ne fa nga dëkk doy na la moo tax nit du xeeb fa nga dëkk nit du xeeb cosaanam te man gère xalaatuma xeeb ma cosaan déet parce que nu ma mel ñal ñoom la ñoo may sagal yaa ngi dégg gon nag ñooñu bu ñu lay sagal àdduna ku lay sagal day sagal moo tax kii la kii nga jox sa dépense nga liggéey ñëw mu togg la ceeb ba nii kooku war naa mën a sagal ba neexee sax ba jëre u fecc u fecc nun lébu yi loolu noonu xam u tegal nu boolab ceeb ba mag demal kër yi ñoom day mari yàlla fekk ñu teg ngan da boolib ceeb bool ba xam ne da see lekk suba gi ngoon jot u njogoonunu si guddi jot u lekkaat si mais loolu ndeysaan loolu moo la def rem réew ñi ñi la lekk bu suur la naan ba mandi nuy xel mën a dal jeunesse bi loolu rek moo la problème dafay gis ab ba jigéen tey suba mu romba la rafet ginnaaw suba mu mel ni kenn xamul xel yi dalatul na xel yi la dal nu am jàmm fa nu toog nu mën a woyantu parce que euh, ndeysaan euh, boo duggee lu mel ni kër ak xaadir yàlla fekk ndeysaan euh, kër yi neex na kër ak xaadir mel ni kër ñoom nday mari ñoom daal gis ña teg ngandam boolig ceeb indi la lekk bu suur la naan ba mandi jigéen ñi commencé fóot la woyantu te loolu mooy dexalam réew ah man loolu daf may ne man gère en bilan loolu dafa may bëgg yaa ngi dégg bu mu jógee fii ndeysaan damay xool sama gars yi ñoom Moussa Tine gentleman bi ne France ndeysaan sama waa ji kenn di yow xam naa ne nag yaa ngi dax la a togg ab ceeb léegi bu baax nag ceeb bi du des kooku muusi di yoo baagante ndey mari ndeysaan sama jigéen ndeysaan kooku kontaan na si moom di la wax nag Baye Fall yi gère en bilan ndeysaan borom ñi dama bëgg ngeen di bëgg seeni xol di feex waay mën a ne bu duggee xam ne gère ambulant ndeysaan maa nekk noonu ndax ndax ndax ndeysaan day naan euh, euh, euh, nit bu defee lu baax am lu baax mais lu mu am ndeysaan lu baax rek lay doon kon nag man ger tey damaa bëgg réew mi ku si nekk xam ne tey gère ambulant émission bi may def nii dama ko def pour réew mi parce que bu ma naan maire bi aw la noo wateel noo tey aw la noo wateel aw la noo wateel ba mu ne aw la noo waaye aw la noo woteel noo tey aw la noo woteel aw la noo woteel noo tey boo déggee loolu di ko way euh, lébu da am na mu baaxoo parce que baa nee si dëkk wala def social la wax la baax la def la baax la jaamu yàlla gon noonu danoo am yéene on est dans le projet candidat noonu laan aw la noo woteel noo tey mbaa googu moo ko waral moo tax dama bëgg fu waay mën a ne ci réew mi na ngay def lu baax di wax lu baax ndax déet kër gi baa fi doonulee dara baa fi jógee doo fi wàññi dara de waaw kër gi baa fi doonulee dara baa fi jógee doo fi wàññi dara te dama bëgg na kër gi ngeen di si doon dara koñ bi ngeen di si doon dara mais nag réew bi nga dëkk nga doon si dara xam nga la moo doon dara nee naa la lu la yàlla jox tey dëkk bokk say mbokk man dama bëgg nit ko am di bokk ay mbokkaam nit ko am xam ne man ay nitam laa am nit ku dëkk si dëkk bi xam ne man si dëkk bi laa bokk ab dëkk nag nee la ku si bokk rek si nga mais nit ki bokkuma si affaire bi dama see génn sama bopp man bëgguma loolu dama bëgg boo nee ci dëkk bi da nga xam ne dama bokk ci dëkk bi lépp lu ñuy defar si dëkk bi lu jeunesse bi di def xam ma ñëw taxaw si mais lu réew mi bëgg baay ma di si def mais lu kër gi bëgg baay ma di ci def loolu mooy gentleman yaa ngi dégg mais gentleman du àgg kërëb kërëb nii ne ni si kër gi bay togg ceeb une li mu togg neexul ah te joxewul laa dépense ma papa dina euh, ma ne Matar mun na ma mën a laay mun na ma laay dépense ba joxewul ndax nii de ma ne ko ak dëgg la parce que xamulaa ab dépence ne joxe xamulaa fan laa jóge xamulaa ndeysaan kaa ne liggéey ba bëgg a dee ndeysaan toogul taxawul la mu am ñëwaa kër la la mu am da envoyé Sénégal yaa ngi dégg mu la fay courant la ndox la la joxe ab parfois. kii ndeysaan pas faire lu ki la joxe dépense barki yonente bi ceeb bi du si lekk waaw kii daa xa joxe dépense du lekk si ceeb bi parce que du ko fekk kay kay huit heures à bonne heure laa la ñëw ah huit si guddi laa duggaat si kër gi de kooku du lekk si ceeb bi masan gi xam te ne day ne si kër gi dimanche ba dimanche nu bàcc nu yëre feesal leen gi ñoo la neex ndeysaan ceeb bee togg waaye ceeb bi neexul waay bàyyi ah yaay ceeb bi neexul waay ah ceeb bi neexul mais defal dara ba defal dara ceeb bi neex ah moo tax ceeb François Diakhoune papa neen daa neex lekkalaay benn benn année ndeysaan damaa fàttal wenn anecdote waajoon ndeysaan man ah su ma dugg am fa ma dem sax dugg si xool booy la mbëkki fee mbëkki ma papa ma mataar mu ne ko laay mu ma suba kànja bi nii nag boobu nu ngay añu suba kànja ba nii ndeysaan ma ne ka mu a ma suba kànja bi nii na de ma a ka ah, wax na dëgg nag te suba kànja nii yooyu ndeysaan sama papa dama koy ñaanal ndeysaan yàlla na yàlla yërëm ko taxaare ko àjjana a ah, sama yaay ndeysaan yal na yàlla yërëm leen moo tax loolu rek jàmm moo koy waral jàmm boo ko amee da ngay mën a nekk seen waa kër di kaf di di dund ku aye ba amee am 1000 francs ba ko mënee dolli dolli ko mais dolleew laa nattu laa ko jot wax si koñ bi ah na gars yi góorgóorlu nee naa réew mi liggéey moo ko yor yaa ngi dégg ñuy jóge fii nee naa ay at ñu ngi bitim réew di liggéey lu ñu am andi lu ñu am andi Sénégal ñooñu dañ leen war a ñaanal jàmm yaa ngi dégg ba amee jàmm rek man am na ma jàmm yaa ngi dégg moo tax jàmm la waay la ñaan rek naka la waay la ut rek naka fee am parce que fi ma toog nii ba man fee toog mën a ràcc mën a jël ma temps yaakaar naa jàmm moo ko war a ba ma amul woon jàmm du ma fi toog yaa ngi tax sama gars yi ndeysaan nee naa la kenn du ñoom yaa ngi parce que am na ñoo xam te foo leen fekk rek heure bii ndeysaan boo xoolee gaal yaa ngi juwaala ñee ngi kafantin ah ñee ngi yoof ñee ngi ndar lu ne ñu ngi liggéey ngir am andi si kër gi af yi weeru toll weeru tamaski ji gis nekk xam ne ne ndeysaan moo tax gars yi ndeysaan jamono bi toll nii nee naa dañuy yeewu ndax kenn du leen na xale jigéen yi seen martu rek lañu yor dañuy xaar rek yow nga génn rek ñu ne la ko kaw pour mën a jël say koppar waaw parce que day laa jiima na yaa te nee naa fii jamono bi kenn naxul kenn ka nekk sa bopp euh, doy na la misaal yaa ngi naa jamono bi nag yaa ngi dégg ñu toll nee naa liggéey moo ko yor ak jaamu yàlla te nag sama temu tey bi nee naa damay bëgg gaa yi di liggéey di jaamu yàlla te nag dama leen la may benn anecdote benn euh, zimbalaas paay barñi ah paay ngor ah ndeysaan M4 TV xam naa réew maa ngi yëngu te kontaan naa si yéen nee naa la tele bi ndeysaan moo saf gars yi te moo nu ni te moo nu doy tamit te ba doon élection ñun M4 TV moom la noo woteel noo tey te kenn du si man dara maa ngi kontaan gaa yi bu baax li bëggee sama gars yi ñoom lamp ñoom ñëpp yàlla na yàlla dolli seen jàmm ndeysaan parce que fi mu ne nee naa la réew mi fii te kaka wax ak ñaaka wax xam nañu xol yaa ngee fii nee na wala anecdote bi ma leen wax nii payi bari ñu àppayi ngor zimbalage ba metti baa te kenn mënu la wax la zimbalage bi dañuy njëkk yóbbu stade Demba Diop payi ngor yee payi bari ñuy matsa baa ngee daw drib drib drib gis kes nekk matsa bi mu toll ba toll fenn fi rek payi ngor yi dugal u gis payi bari ñuy xoola commencé dema ñëw dema ñëw u gis ajiko yi la yëngu la jég yëgër égalise ñu xool ni daal matsa bi comme guddi na nañ bàyyi léegi nag ñeneen léegi Zimbala bi xam nga nañ kaa def comme ñoom ñaar football nañ démb jóg kenn gañewul léegi nañ ña fee jël paay bari ñi fekk ji paay ngor maa ko fekkee li ma la wax nii la ma fekkul du ma ko wax mayow ma ak dëgg la ma wax paay bari ñi bee nee fekk paay ngor premier tour paay ngor réel paay bari ñi ay nag rey rey teg rey rey rey teg bi ñu reyee xoolal joppaay bari ñuy lekk bu suur lekk bu suur xam nga la ñuy defar ne ñii comme paay bari ñi la te marché bi daa xamante woon te fi ne lekk ne bu suur lu ñu defal jus jinjër gis nga bi ñu naan jus jinjër bi daa gis paay bari ñi fa nekkoon daa gis ña la si daan ñu ne la ñu jinjër jën daa saf paay bari ñi nag ñoom jinjër jën defal comme daa saf ñu commencé jooy loolu métti ña ña fubal paay ngor ñëf ñu 11 0 loolu métti paay bar ñi léegi paay bari ñi bee ñibbisee paay ngor yi war a jóge ngor ñëw bari ñi ah match boobu néewoon na ñoom Baye Madiara doon tëggal paay bar ñi udi gis ñu naan du ko génne génne torax du ko génne génne torax ndeysaan si match bi day doon supporter loolu paay bar ñi ndeysaan bii paay bari ñi ndeysaan ñu jàpp paay ngor réew ñu tamit ay nag ay dégg defal ñu ay xar keroog la paay ngor yi lekku yàpp ba suur ndeysaan bi nga dem nag paay yi ngor yi la ñibbi paa yi bari ñu ne déedéet ba ne laa ñibbi teraanga teraanga kaa fay bàyyi nu defal leen jus paa yi ngor naa comme ni ñu doon jus waaw paa yi bari ñuy dem jënd treize kilos yi kaani lay jënd paa yi ngor treize kilos yi kaani xam naa treize ñoom lay jënd paa ngor def si tuuti timma si rek jënd def vingt vingt vingt euh, trente trente trente six euh, trente six paquet timma si daal waaw ay paquet ba mu mat trente six def ko si. def si ci masi bi dëbb ba mu mokk jël jël xorom poole def si def si def si léeb jus bi jël laaj def jël jël poobar def mais gis nga bi yekk njamee ba mu saf jël tuuti daxaar def def ko ab jus jox ko paay bari paay ngor yi gis nga paay ngor yi bi yekk naa ne daal digg paay ngor yi commencé si waa digg paay ngor naan u digg paay bari ñu naan ñëw danu ñetteral bee la jooy e ñëw danu ñetteral bee la jooy e ñëw dan ña teral bee la jo loolu paa yi par ñii ndeysaan ñoo ko doon terale paa paay ngor xam nga lébu dax tàmm ne kama lebal samedi ma fay la dimanche moo tax kaña lebal la baax rek ña fayee la baax moo waral dema la teral bee la jooy foofu la jóge woon ndeysaan M4 TV xam naa ne jet ambulance xam naa ne xol yaa ngi fee fu waay mën a leen rek xam naa ne yéen a ngi bég ndax yéen naa dama bëgg ngeen di am jàmm seen xol di gundaandaat man fa ma ne may am jàmm sama xol tamit di nee naa la ku def lu baax ñu wax ko te nag damaa bëgg réew mi ñu toll nii nee naa def lu baax dafa xew xam nga lu tax mën def lu baax dafa xew boo duggee si dëkk bi xam ne ñii di def lu baax ñu ngi def lu baax yaa ngi dégg nga ñu si jamono xam ne ñi def lu baax ñu ngi def lu baax nga dugg si hôpital yi xam ne ñi def lu baax ñu ñuy def lu baax nga dem si prison yi moo tax dama bëgg nit ki di def lu baax ndax chaque jour dañu lay wax lu baax boo yi seetee ñu naan gentleman bu mag bi lu baax la muy def moo tax gentleman du na nga ne si mbedd mi di dóor jigéen gentleman du da nga ne si réew mi di defar di reewantu gentleman du da nga ne si dëkk bi di def lu la nee non gentleman bu ñu koy moo la góor yàlla bi xam te mu ngi def lu ne yaa ngi dégg di jaamu yàlla di def lu baax di wax lu baax ba pare nag di sol lu rafet di xeen lu ne parce que gune tey yi ma gis nii ah da am na yaa nabeeg nit waaw da am na yaa nabeeg nit ki xam tey mu ngay def la baax mu ngi sanca lu rafet mu ngi xeen lu neex mu ngi def lu baax mu ngi gëm boppam gëm na yàlla mooy may gëm na yàlla mooy xañ réew mi métti na trop mais nee réew mu métti liggéey moo ko yor te nun liggéey di jaamu yàlla yaa ngi dégg tey boo demee Europe fi mu ne nii kenn toogul kenn taxawul jigéen ñaa ngi dang dangi góor ñaa ngi dang dangi mais nag li ñaa liggéey lekk ñu si ñaar dërëm waaw loolu maa ko sañ wax européens yi li ñaa liggéey lekk ñu si ñaar dërëm parce que ka xëy huit heures wala xëy quatre heures du matin liggéey ji salaire bi am weer wa dee yónnee sa yaay yónnee sa pap ah yónnee kër gi yónnee say jabar ñoom ñoo ko lekk ñoo ko naan de parfois sa rakk ne si kër gi la te daa jox ah waa léegi kooku doo ko ñaan a jàmm ñu lay war a ñaanal man ñooyu dama ñaa ñaanal mooloo moo yi ne juwaala wala Kafountine ñooyu ñi nga xëy dem liggéey ji ndeysaan ne si géej gi la dang-dangi des na nga xam liggéey gi daa métti de man mii jaar ma si géej ab uppo la ma woon uppo tey ma leen la moo tax uppo uppo baa diggée ñu naan maanaam euh, booy ba ndaw si gaal kooku moo la uppo man dama daan uppow ne si géej la jàng géej la dem yaa ngi dégg ba tey yàlla def ma li ma def yaa dégg kon nag moo tax euh, réew mi ñu toll nii nit ku liggéey am dara mais ku liggéeyul doo am tus moom moo jeewoon ne ko waaw bi mu naan ku liggéeyul doo am tus parce que nee naa réew réew mi liggéey moo ko yor goon yal na yàlla dolli jàmm yal na yàlla dolli suturu mais yal na yàlla dolli barke ndax man seer moom dama tàmm fu ma toog bu ma suuree sama xel di dal may woyantu di wax lu ma neex ah loo xam te neex na ma ah loo xam te doy na ma parce que nee naa la tey def lu baax wax lu baax dafa xew mais nag kuy wax lu baax lu baax rek ngay am ci réew mi yaa ngi dégg moo tax fukki penc ak ñaar yi ma bokk chaque jour dama leen di nuyu di leen gërëm ndax chaque jour nee naa la tey euh, réew mi ñu ne muy Sénégal euh, dañ di ay ndaw boo nekkee ndaw nag da ngay xam la nga war a def ngay di ko def bañ def benn violence yaa ngi dégg ngay oote jàmm di wax jàmm di di di def loo xamante ne yow di nga neex waa dëkk bi nee naa la man bëgguma ndaw boo xamante ne fu ñu la fekk rek da ngay def loo xamante ne ku la gis dalay xeeb sa koñ nee naa la bu ma dëkk man mii ndaw maa koy defar kon dama bëgg na gars yi di génn ñuy defar koñ yi di defar réew mi ndax réew mi di neex ndax M4 TV nun suñu télé bi jàmm la ñu xam yaa ngi dégg jàmm rek la xam mais nee naa la mooy télé bu mag bi xam te ne ndeysaan si yoon la ne te nee naa la nit si yoon nee naa la lu muy ragal waaw non damay liggéey parce que liggéey moo yor lépp kon nag gars yi nee naa la yàlla na doolu jàmm man gère ambulant damaa ñëwoon ngir bégal ngir fontu def ak ay palaa moo tax ma ne ndaw bu yoroo bëri xam-xam te yaaja liggéey lu mu am jombu ko kon daman juddu géerëy deret jee foor ñooy doomu lebu piir ñoo baak ñoo gore gar mi yaa ngi waaw boo diggee mën a ñoo baax ñoo gore loolu nee naa la baax moo tax ak gore a xam fi nga bokk moo tax ñu ne ndax bu yoroo teey te yaay ja liggéey lu mu am jomb ko yaa ngi dégg boo diggee ma ngi démb da ngay dégg parfois boo daa dem bar ñu ngi dégg maire yi naan sëñ nga rëbee sëñ nga sama waa ji sëñ nga rëbee bu rëbee ma taari reer cere yi baraay ya ndeysaan nee loolu nag boo diggee ñu di ko nee naan ka liggéey man la ma am dama koy taareb reer jox gaay ñu lekk ñi mën a kaf ñi mën a naan ñi mën a ree nee réew mi nag loolu moo koy defar nee nag sama gaay yi kontaan naa gère ambulant yàlla na yàlla dooli jàmmi réew mi mais maa ngi bég AMK TV kenn du ñoom ñoom ñoo xam te ne lu ñu wanewul baaxul ñii dañ ne si réew mi di wane lu baax di def lu baax di wax lu baax nee naa la man ñii laa foral te ñii lay béggee te ñii ñoo ma doy te bu doon élection nag nee naa la ñii lay woteel ñoo tey gars yi Z en Bilan ay émission balaa bi kontaan naa kenn du yéen yàlla na yàlla doolu jàmmi réew mi bég naa ndeysaan